mais fekk nañ fi ay Baye Fall yoo xam si ne ay ndaanaan lañ ah, ñu dékk leen suñu micro ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci combat bi ñu jëm dox ci diggante Siteu la de muy combat boo xam si ni Mansour Ba Mansour Ba moo ñu fa woo ci arène national dox Siteu Lac de Guiers bokk na ci ay boo yu mel ne Prince ñoo ngi ci biir journée bi ak yeneen boo yoo xam si ni mbokk yi dinañ leen feeñal si dinañ leen feeñal ci biir leeral TV leeral point net mbokk yi ki ñu toogal ni Sénégal xam nañu ko ràññee ñu ko muy pimpi pimpi bu ñu ko waxee muy dofu Siteu bi. Pimpi ñoo ngi lay nuyu. di leen ziar Fallou di leen ger yéen ñëpp waa Leral TV di wax jërëjëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul jaaraama Cheikh Ibrahima Fall Lamb Baabul Muridiina may sa biyee Kumba Fall mi nga xam moom lañ yaakaar àdduna ak di leen tiitaroo yéen ñëpp sëñ Fallou. Pimpi ñun bu ñu duggee ci ñu dugg ci waxtaan bi xuus si Siteu Lac de Guiers waajtaay wi Siteu Lac de Guiers combat bi ah, coow li bari. combat bi ñu jël ñu ne nga dégg amateurs yi liñ ciy wax ñu bari liñ ciy wax ne sita amul dara ci combat bi amu ci dara. waaw ñoom loolu la ñuy wax di loolu lañuy ñuy dëggee saa su di ko wax booy bi ndax moom dafa nekk xale ko xale ba am joom bu efficace Siteu li mu doon moo waral sax mu àgg fii nii di jël ñoo xam si nii saa yu dëkkoo ñu ne ñii. te fekke na ñooñu li nekk si booy bi nekkul sax si ñoom booy bi moo ubbi làmb moo wane làmb si dawam ku ko xam ku ne si làmb nga ko xamee làmb li ma leen waxoon rek Girna yi ñoo ko téye suñu loxo nii ñoo ko moom ñooy diriger ñun kenn duñu diriger. mais bëreeg la bëreeg la de guerre si te bëreeg la la de du risque du ay risques yu muy jël. kookoo gën a tuuti si ñuy bëreel moo si gën a nekk liir. am na ñu ko gën a tàng ñoo xam ne jaar nañ fi da nga di laaj la leen daj Siteu boo woon ak bii ni bokkul de déedéet Siteu ñibbisi si ay mbokam yow mu ngi si biir ay nga ne mu ngi si biir yi mbokam Siteu woon boo woon boo bu njëkk ak bi lii bokkul Siteu buñ doon gis bu njëkk ak euh, topp ful bi topp ci lu ko neex léegi amatul mu ngi ñibbi na ci ay mbokam déggoo lu ma lay wax ñibbi mi si ay biir yi mbokam li ma la wax du dañ téere la. lu tax ngeen dem mu dem si ay biiri mbokk. waaw am na loo xam ne duñ ko wax musul jóg si ay mbokkam mu ngi si ay biiri mbokkam daa gën a yeesalaat taxawaay bi dañoo jël suñuy motuwaay quoi lamb ji moo gën a tuuri si lamb yi ñu jaar eh, liñ soxla àgguguñ fo dafa am bëgg te yàlla luñ ko Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra baddil te dañu koy baddil barke sëñ Fallou Fallou la de Guiers yéemuñu. ndax nga ne Lac de Guiers yéemu ko sax xel. ndax bàyyiwu leen waaw muy champion bu mag ngeen ne bàyyiwu leen ko xel. ñun ñun xam daan fi ñoo xamee daanoo leen. ñun romb nañ champion an kay ñun ñun ñun ñun bëreel daan leen Lac de Guiers daa waroon bëreel ñooñ nga xool Lac de Guiers amagul woon combat de ñu doon bëreel ñëpp loolu du làmb kon ñi doon bëreel ay Modou Lo ñi mu doon bëreel ay Yékini et Ah, ñooñu ñëpp nga ne du combat. déedéet ñooñu bëriwul. kon ban mooy combat loolu du combat. luy mu ngi doog am combat. Lac mu ngi doog a jàkkaaroog mbër mbër akan laa la wax ni kii mbër dabu ko daa judd doon mbër da ko namp. dafa judd ci mbër. séeréer rafo gars yi ragaluñ loolu yow Siteu ñun xam nañ ko yàgg na du tey. kaddu gi mujj gi ngay wax Lac de mu ngi lay seetaan lan nga koy wax. Lac li ma koy wax rek moom moo li ma koy maanaam li ma ko waxoon keroog laa koy waxaat na nga jël say matuwaay bu baax xam ne danga ngaa yoon loo xam ne atunoo ko mu ngi wax nag ñun gis nu sax jamono yi yombut. mais am na kàddu gu wax nee na Siteu li ma koy may mooy li li Sénégalais yi bëgg loolu laay def mooy fu Siteu teg tànkam dama ko fay fekk. waaw bàyyi ko dañuy dox daje rek xaajale digg bi te moom mooy bàyyi boo moytu. bu ñu xaajalee digg bi lu fay am. ah xamoo ko. xaw ma ko de. Siteu ku nekk xam nga ko. la fayam moom xamaguma. boo ko woowee si xeex da nga koy da ngay daw rek. boo bëree di nga bëree ba naan bëri ko ndox te fa ngay mujjoo rek barki sëñ Bamba bàyyi. moom moo la gën a pare ñoom ñëpp mille fois bu li ma la waxoon rek Fallou newoon naa la kalan bu mag bi booy bu tas na ko. ban kalan la tas. kalan bu mag bi. bu mag ban bi newoon ci kaw. mooy ban kalan. mbër yi newoon ci kaw mbër yu mag yooyu ñu naan jiñ naan ay mbër yu mag lañ ni na ci kaw def seen benn kalan noonu. di bërintu di bëri. seen coalition bi. booy bi rajaxe na ko bu tijji porte yi. kon coalition bi tas ngeen. waaw tas nañ ko booy dañoo war a dugg si surtout day xaleel booy da leen di wan yoon bi ne leen nii la. làmb daa am ñu ko mérito làmb ñun ñoo ko moom ñun jaamu gën si kaw mbaaw. tey bu ñu si génnee suñu loxo làmb fay. barki maam Seydou Fall. loolu kon rendez-vous suba wala ginnaaw suba sax boo ñëwaatee nag ñu fi fekk ñun duñ bàyyi. njël mi jaral nañu quoi. jërëjëf romb nañ loolu sax. mais Lac de moom naa ko wax ne moom si boppam man dinaa ko gém gém ñu muy àndal. di nga gém Lac de Guiers. barki allah ji Fallou Mbacké. boo yu muy àndal de. waaw boo yooyu kenn mënu leen a de. boo yooyu suñuy doom lañ boo yooyu Bakara ba naa si ñoo leen ko jàngal. nga ne Bakara. Bakara ba naa si ñoo leen ko jàngal. Ah. barki sëñ Fallou Mbacké suñuy doom lañ. ay macha macha macha macha doomu Lac de Guiers la de. baal ba ma jàpp ko baal ba ma dajeeg moom. macha bu ñu séenee sax day laxatu. du ñëw. lu tax waaw day xam ni cargo yu mag yaay nii génn nañ ñun suñu cargo yu mag waaw ñun suñu génn yombul de dundam kemboor kii rek ñu génn de. jërëjëf ñun pour nga gis ñu faaw si te génn ak xam ni mbambaan yu mag yaay nii. mbambaan waaw mbambaan yu mag yaay nii di génn. na Sénégal bépp dégg noonu suñu génn yombul benn mbër moo ñu génnee suñu àdduna te bu ñuy génn da nga xam ne cargo yaay nii. cargo yu barki Alaaji Fallu Fallu ñooñu dawuñu suñu yaram ti bàyyiwuñu leen sa xel gars yi noonu lay demee dañ leen di toppal ak eh, dañ leen di topp dañu bëgg ma ànd ak Seydi Diagne mu topp ma bu ko defee ma xool ñeneen ay ma xool ñeneen ñi nga xam si ne ñoom ñoo ngi ci biir jàmm gën fii ci kër Siteu ak yeneen ndaanaan yoo xam ne Seydi Diagne nañ dem let's go maa lay seer waaw Fallu ëppal waaw waaw si si xel si xel ëppal si xel si maan ci maan mhm. ëppal ci bopp waaw si maan lu waral ëppal ëppal bi non benn ëppal de waaw man ëppal waa ëppal suñu yëf la mais si ma ku ëppal nga non si maayen si xel fàllu du rambax rambax de waaw si cerveau. ëppal ci cerveau. waaw <laughs> ah, ëppal si xel. <laughs> Cité Lac de Guiers. waaw Cité Lac de Guiers loolu yàggatul dara. waaw ñu ngi waaj bu baax. waaw ñu waaj bu baax. du yomb gars yi nee nañ loo leen waaj doyul. non du yomb yoo xam nga ni borom dëkk bi rek war a ñëw non loolu loolu loolu beneen affaire la. la de am na coow de jarul muy yàqam di sax di rambax rambax ëppal sunu yëf waaw man yàlla lu ma wax dal na sama xel de. waaw nee na ma ëppal. Eh, waa ji dina xam ne ah lekk na awaas de waaw dinaa ko duma dinaa ko daan te man yàlla min su ma waxee loolu damay xam ne loolu dëgg la waaw lu ma wax da koy da koy def. li wax ne da koy def. da duma dina ko daan. waaw maa la loolu. ëppal ci xel. waaw moo tax man du rambax rambax si maayen ay ayca kon noonu lay demee ëppal ci xel ëppal ci maayen waaye dañoo ñëw jàmm gën fekk fi sunu uh, maam uh, mu wàññeeku tey fii ci jàmm gën di ko ñaan sunu borom xaari ko àjjana fi daw si ndax naqar bi ñoo ko bokk di ñaanal chrétien yëpp nañu ko ñaanal ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo di dëkkandoo cité la ci fi lañ ko fekk wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee léegi lañ ñu wax annonce bi mu nekk lu ñu naqari trop waaye teewul tamit dañ koy def ndànk-ndànk rek easy easy ñu dem ci DG. waaw mais maam Thierno Birahim Ndaama Ndaama Ndaama maa ngi lay ziar. jërëjëf ziar wér. dafa mel ne tey seen xol neexul ah. sunu maam moo wàññeeku fii bilaay. ñu koy ñaanal yàlla xëy na àjjana. waaw sunu dëkkandoo bu baax la. lu ne la ñuy def si buntu këram gi. waaw du tee tamit dañuy maîtriser ba tey. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla nag xëy na àjjana. waaw si ta la dëgg. si ta comme noonu rek. bilaay galas xam nga tey nu mu demee la mun ñu wax. jërëjëf xam nga jërëjëf. ñu ngi toog DG. Cheikh kii mooy DG Siteu DG maa ngi lay nuyu. Fallou ñu ngi fay gaar lan la. dara toog ne rek ñëw fekk fi benn dese bu ñu tàggee léegi suñu maam boo xam ne mère bu baax la ko quoi bu ñu nekk xale ba léegi moo ñu yar fii si koñ bi chaque jour ñu tànkal ko chaque jour ñu déranger ko te musul génn ne yeneen a may tànkal wala yéen a ngi may déranger waaw dañ koy ñaanal rek borom bu defal ko jàmm quoi fa mu jëm waaw. kon tey wax ji mun ko bari. waaw tey moom mooy loolu Fallou. mais yow mooy loolu na la jàmm sonal rek barki alxuraan a këram ñu wax ni nag xam nga bu ñu jugee si lee après da ngay ñëw ñu yaatal ndax maa ngi dégg ay défaillant yoo xam ñu si àll bi di wax rek. ñoon ñan la. su mel ne ay Ablaye Diop xaas ñooñu nga xam ay fenkat lañ xamuñu dara xam nañu Ablaye Diop xaas fii la newoon kër sëñ ba doon solu sécurité dóorkatu marto la xamul tous. Ablaye Diop xaas da doon so fii la doon nekk. kër sëñ Sidi Mbacke xam na ma bu baax mi mooy bu ma seetaanee dina ma xam xamul dara. day fen bu aayoon sëñ bi da koy seexal tous xamu ko. ay Matar Ndiaye dëkk Lamsaar ñoom ñëpp dinañ ñu aal bi. Matar Ndiaye mu def. seytaane la kooku defeñaa la mais bu ñu ko jàppee mu xam ne maanaam ñun deretu jàmm mooy daw suñu yaram ñun Siteu ku ko bëgg. ñu Matar Ndiaye mooy ménagère Ada Fass. waaw déggoo lu ma la wax kooku seytaane la Matar Ndiaye kooku xam nañ lu muy wër kooku jigéen moo ko yóbbu foofu ñun daw yooyu dawul suñu yaram seytaane bu mag la barki alxuraani karim billaay wallaay taalaay. waaw mais ki mel ne Matar Ndiaye ki su mel ne Ablaye Diop xaas ñooñ bu ñu amee lu ñuy wax dañ ko wax seen gàlle mu ñu su ñun dërëm si te ko si mbatal la puus mu dem puusul mu dem. dafa am ay kàddu yu mu wax si si. non Ablaye Diop xaas dégg naa ko muy fen naan ay bu arbitre ne prix la dëgër daan si te loolu bu ko waxee day fen am DG si te maa ko wax Ablaye Diop xaas boo waxee loolu da ngay fen xamoo sax suba boo ba xam di nga yeewu nga jëloon femme bu pungal boobu da nga koy faj lan la mujjee da ngaa faj. kooku dóorkat la yi nag dafa jot ñu xam Mara yi Mara dëgg dëgg dëgg du wax day jëf Ablaye Diop xaas gis nañ ni muy joobee day fay sax pour ñu ñëw gàllam ay sax ay yaama faj faju fi kenn kan la fi fam lijjanti boppam bàyyi xeesal bi jooy muy wax dawul suñu yaram de Siteu la ñu bëgg ko bëgg bëggul bëgguñu la li may wax nii nag Fallou na ngeen ko génnee mu daw fépp. leeral lañu ne leeral laa koy leeralee Ablaye Diop xaas fenn kan na génn suñu garde balaa ñu ko wax boppam góor buy xeesal la luñ ko xamal nag bëri na boo ñëwaatee moo wax la yeneen yu gën a pire si moom. Siteu la dageer. waaw ah. Siteu la dageer. ah lu baara dañuy ñaan dañuy ñaan yàlla mit daan ko rek. waaw. grand Siteu la dageer foo leen si toll waajtaay bi ngeen nekk buntu gaale mbër. waaw ñun instant yii nii ñun pare nañ pare nañ suñu bopp la dageer moom bu ñëwee benn jooy rek lañ koy jooy ñu dem. grand Siteu la dageer. waaw man moom lu may wax bëriwul quoi la de guerre ne ko am na guerre te lu mu baax dinañ ko ñeer waaw man loolu laay wax quoi dañuy dëggal suñu bopp rek taxaw xaar. jërëjëf. mais jàmbaar ji. siyaar nan. coow li bari na si si la de guerre. génn di wax lu ne waajtaay fan ngeen ci toll. waajtaay xanaa pare rek loolu du wax sax la de guerre day xaar barki Sëriñ Bamba lañ dëkk jàmm for laafe kenn du la wax. jour boobu li fay li fay neex yëpp jàmm gën gee koy def. bëre bi bëre beeg xeex beeg ambiance beeg lépp. lépp yéen a ko sëñ eh, pare nañ si lépp. non la dëgër foog mu def dara. la def dara du def tus kooku mag la day toog xaar. grand waaw. maa ngi lay màggal. ci loo ne. alhamdulilah Siteu la dëgër. Siteu la dëgër du combat. lu tax kooku dañ koy sëlmoo. da ngeen koy. booy bi catu baaraamam da nga koy téye sax muy bëre waxoon naa leen ko ci papa Sow. catu baaraamam da nga koy téye muy bëre ku ko xamul seetaanoo ko ba muy door Siteu dina def Lac de lu garaaw billaay wallaay taxaw xaaram yooyu bis bu taxee xaar booy dina ko fekk dina ko daan Siteu tiituñu si moom dara xama lu ñuy ñaan yàlla bisu jaam mu fekkee ko dina ko duma dina ko daan barki Mouhamed man maa wax lii. tur bi man pabis Papis lii. officier lii magu xale yi. Siteu dina daan Lac de Guiers ba jaam a gën yëngu waay toog di jooy le 19. maa ngi lay ziar. ñu lay doori ziar. Siteu la da bari na. la da du guerre te lu mu baax na nga ñaar kooku day xar ba bu nga jaabee moo xam ne bu dëgg nga leen dëgg si daay suñu mbër si da kese lañuy topp tous daw rek. amul nga am. déedéet amul comme noonu rek. jaajëf. ndax ñoo ngi dugg ci biir jàmbaar yi waxtaan ak ñoom ngi dugg ci biir jàmbaar yi. xool lan moo am si diggante Siteu ak la de ñëw nañ fi fekk fi naqar boo xam si ni xëy na euh, dëkkandoo Siteu muy maamu Siteu mbokk la ci moom dëkkandoo rek mbokk la ñu koy ja ñu koy jaali di ko jaale jàmm gën gépp waaye du tee tamit ñu jël fi quelque def quelques témoignages ci diggante Siteu la de Guiers grand waaw borom Pikine billaahi Siteu Lac de Guiers Siteu ah Lac de Guiers xaar lu muy xaar ñu duggee si digg géew bi bu ñu ko tonnee lay lay soog a xam ne saa day xaar xam nga fu may waxee moo la dëgër ñun yéemuñu quoi. moo la dëgër yéemu leen kan moo ñu yéem yàlla sunu borom rek moo ñu yéem waaye ñun la dëgër yéemuñu. yalmin bi. borom dëkk bi. yàlla na ko sunu borom defal tawféex may kon ndam bu set huit yaa ngi dégg di xamal ni la moom lu mu foog amul. Lac de Guiers lu mu teg moom amul te booy bi xale la daa nekk si yoonam ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu set wécc waaw yal na ko yàlla defal jàmm. jërëjëf Papy da ngay daw rek amoo arrêt. amoo arrêt barki maam Serap Fall mi kese amul leneen barki maam Serap Fall mooy loolu waaw. ragal dara non kii ceer ceer ceer mooy loolu kii mooy safaru si da def. maa ngi fi rek. loolu tax nga toog. Siteu rek moo tax ma. nga dañ ko. dañ maa dàq. dégg naa Siteu da laa dàq. waaw. kon dafa jël keneen. jël keneen waaw dafa ceeñ. dafa ceeñ waaw. Siteu war naa ceeñ nga ànd ak moom fu ne mu lay dàq. non lamb bi léppay ceeñ. lamb ji ko nee na ceeñ. nee na ceeñ noonu ko tuma sëfër. commencé ngeen ak ceeñ bi. ceeñ lañ def fi de nii. laay wallaay taalaay. nga yow nga ne sëfër bi. lañ ko mujj jël gardien. Ah, gardien <laughs> kaay ceeñ ci nañ yàgg. lamb ji dañuy commencé ceeñ. lamb ji waaw. bañ a mais c'est que euh, làmb ji coow li ci am yëpp gis nañu sorti am ñu def ay sorti di wax si diggante Siteu ak yeneen i mbër du ma tudd. xam nga mooy loolu ah ñooñu maanaam seen xel tolloo seen tolluwaay la ñuy waxee rek Siteu moom dafa nekk mbër boo xamante ne dafa am ay rak am ay waaw ñoo xamante ne dañoo topp si ginnaawam bokkul ak mbëru waaye waaye yi nga xamante ne xam nga li ma la wax nii ay 5 millions Siteu mbëru 75 millions la. 75 millions. bu mbëru du ay mbëru ay cinq millions 10 millions. Siteu du mbëru 8 millions du mbëru 7 millions du mbëru 9 dama la koy wax nga dégg ko bu baax a baax a baax Siteu bu weesoo Balla Gaye weesu Modou Lo weesu ak Ama Baldé ñooñ la bokkal kase bu dul ñooñu amul mbër buy takk ngemb si làmb bi boo xamante ne tollaa nga ak moom kase kon tey jii nii man ay mbëru juróomi téeméer bu leen ay nit demee ba leen di tëkkaleeg ay nit kon ñooñ jaruñu waxal. ñun am nañ fi ay rakk yoo xamante ne nii mooy loolu sina déggul ma am na loo xamante ne nag boo koy wax dalay tere dalay xañ jàmm te ki ngay waxal yow doo doo doo mën a àgg si moom kon nag yow da nga war di wax loo xamante ne lu lay may jàmm la quoi xam nga tey jii nga topp si Siteu Siteu Siteu yow Siteu du la gis sax amaana Siteu du la déglu sax mais ay fan su xam nga foo foo ñëw ñu fekk la fa xam nga lu ma la wax nii yow doo am jàmm kon loolu am xañ la jàmm loolu am na lu ko gën sina déggul ma la ku si nekk na daas li mu daas rek bu heure bi jot bu heure bi jotee ñu xam ne heure bi jot na waaw xale da ngay bëre morom mais pas di jël ay boy ndaw di leen teg foo xamante ne nii maanaam mooy loolu noonoo ñun joobee wuñ noonu de ñun li ñuy wut si làmb lépp dañ ko am lu mbër làmb di am lépp am nañ ko toog si waaw lépp nag laa lay wax lu mbër war a am si làmb rek. lu mbër war mbër war a am ci ay bien sax yéen am ngeen ko ngeen toog. déggoo li mu la wax lépp ñun wàllu yaanu wuñu dara. wala dëggoo lu mu la wax suñu dëkk bi dafa tëgg waaw ànduñoo koo xamante ne ni tamit maanaam tey jii nii mooy loolu wala dëggoo lu mu la wax yàlla suturaal na ko waaw si ndawam waaw du mën a sotti sotti lépp sotti na de mais li ko si dese bëreetul. gis nañu la deger bi mu ñëwee si signature bi Siteu ñëwul mu ne Siteu fu mu teg tànkam ma fekk ji ko. waaw loolu yàgg na ko wax boo xoolee ay combat am yëpp nga gis yëpp yëpp yëpp loolu lay wax fu mu teg. tànkam ma fekk si ko fa te ku nekk day teg tànkam moom mu teggi tànkam teg ko si ginnaaw la dëgër nañu xaar ñi ngi ñëw. noo leen li mu la wax nii instant bi nii làmb ji maanaam amatul cin bu ruq buy sedd. féppay baax féppay baax waaw instant bi ñu nii amatul ruq boo xamante ne nii day sedd. ay nit fàtt ngeen fi lan lañ wax bu arbitre sifflé moo tere la dëgër daan daan Siteu ñooñu mooy loolu. bari nañu ko. waaw ñooñu dëggul mu la ñooñu ay sëriñu juróom téeméer lañ waaw ñooñu amuñu lu ñuy wax ñoom ku doon loolu la seen goro yi duñ daanu si ay dëggul mu la ni kon chaque jour laa wax ni kon mooy loolu ñu assuréel seen goro yi wala ñu assuréel seen ñi nga xamante seen gardien yi leen di garder te nekk ay mbër ñu assuré leen ñu assuré leen ñàkk a bañ daanu waaw lamb ji fii nii mooy loolu de. ku si nekk na maanu rek xam nga li ma la nekk si li nga war a nekk Siteu moom kenn du wax si moom loo xamante ne nii maanaam. am dafa am ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi commencé wax ci combat bi ne Siteu fu mu teg fu bu arbitre sifflé day rëpp. loolu ma la wax nu mu tuddati sax xam nga kii Diop As Fama nu mu tuddati Abdoulaye Diop bi promo la bëgg xam nga dafa fay jamono yëpp kenn déggu ko kenn. Ah, dafa fay noonu. moo waral maanaam tey jii nii maanaam mu bëgg a génnati pour wax si Siteu pour amati promo. est-ce que déggul mu la wax ni promo bu ko bëggee na dem si ay mboqam mu wuti jógo ñun ay sëriñu internet yooyu noonu ñun yooyu waxuñoo ak yooyu de est-ce que déggul mu ñun mooy loolu ñun ay Baay Faal lañ ay taalibe sëriñ Tuubaa lañ amuñu loo xamante ne ni maanaam tey jii ni lu ñuy ragal la wala loo xamante ne ni lu ñuy tiit la si liñ jëm nii la dagar arbitre siffle moo ko fi bàyyi barki borom daaru salaam gaan waaw bu arbitre sifflé ñu xam ne xale màgg na barki alxuraan billaay wallaay taalaay waaw. Siteu fu mu ne réew man koy xool laajte fu mu ne gars yi kenn xamul mais Siteu fu mu ne. am si dëkkam rek toog waaw nekk si li mu war a nekk waaw nitam nekk si li ñu nekk waaw di xaar le 19 yal nañ si borom bi yóbboo jàmm ñu fekk ko tal ko rek xam nga li ma la nii kenn benn mbër bañ si gaañu ñëw esaat si jàmm nga xool. bu boobaa nga xam ne ki ko mën ak ki koy jéem bokkul la dagar bàyyiwuñ ko xel si dara waaw. bàyyiwuñ ko xel ci dooleeg. tëkkul mu la ban doole ban doole la dagar ban doole la am la dagar bërki démb fii nii moom ak booy ñaa fii nii lan la ko booy ñaa def fii keneen ak keneen fii nii. yow la dëgër dëggul mu la la dëgër mbër yi mu dajal yëpp laa la wax ni ñu koy may ay wet ñoo ñëpp mënu leen daan man la dëgër dëggul mu la ni arbitre siffle fu mu nekk dama ko fay fekk xam nga moom nee ma tegee pas mu teg pas mais loolu moo si dul am si làmb ji waaw dañuy daje rek moom sponsor de waalo la dañ si xam dara. te ne moom nee na waalo waalo la Siteu moo nekkul waalo moomul waalo moom moom moom waalo. kooku duñ si wax. ñun Malang yooyu mu la wax ne ñun Malang Ngéej fépp la ñuy dem est-ce que déggul la wax ñun waalo waalo yi xam nañ ñu waaw déggul mu la moom tey jii nii Mohamed Ali mi ngi fii est-ce que déggul mu la na dem jéem a gëstu doom Mohamed Ali yi jëm leen a jàppale est-ce que bu doon deretu waalo bi da doon daw si moom noonu lay demee. ñooñu ay cof beru lañ ku ci am bàyyi say mbokk sa déglu ma la ñoom loolu la ñuy dund Siteu dundul loolu de lu am bokkoo ay mbokkam waaw bokkul ak cof beru yi nga xamante ne nii mooy ay Mouhamed Alla ay doomam a ngi fii si dëkk bi sonn benn sonn boo xamante ne nii moom bu doon doomu gor la du tëdd sax si étage sax ñooñu tëdduñu si étage lu ñu am Mouhamed Alla moo ko dal bokk na si am na si ay part de responsabilité kon ñooñu bu ñu buggee taxaw bëgg a tiitaroo waalo waalo waalo waalo kon làmb la rek te moom yàgg na si loolu. bi muy bëreeg Modou Lo lan la wax fii ay waa Jonwaar est-ce que déglu ma la tudd waa Jonwaar ak fu ne moom noonu la yàgg a mel mbër bu mu bëreel dina la jaxase ak àdduna mbër bii nag moom da ko mënut a jaxase ak àdduna mënu ko jaxase kenn waaw kii mbëru réew la de nekkul mbër boo xamante ne ni mbëru comme ay la ak yooyu noonu de kii mbëru dëkk la mbëru réew mu xamee ko noonu bu baax a baax a baax waaw. jërëjëf tawfeex rek yow jàmm yow rek mooy loolu mais xam naa du du ñàkk tamit du ñàkk tamit ñu gën cee waxtaanaat ci bisi ndax ñoo ngi war a jëm ci yeneen ay face fas face ngeen war a jóge fii gunge Siteu mu war a jàkkaarloog la dagee ci ay face à face loolu dina garaaw de sant bi nii loolu rek lañu yàqam ni boobu waaw face à bi ñu ñëwul barki démb nii rek noonu leen a métti noonu la ñu méttee waaw kon métti na leen bu baax wala déggoo lu ma la bu baax a baax métti nañu bu baax. boo amee looy wax Mansour. Mm-hmm. lan kooku kooku moom xama nga kooku zéro faute la kooku dañ koy sant di ko gërëm li ma la di ko ñaanal di ko jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax ah, parce que nit la boo xamante ne nii nit bu matériel la ko waaw ah, kooku loolu rek laa am wax si moom nekk xale boobu waaw mais mooy loolu mais noonu la rek adduna moom xam nga bu la dara tax a beew xam nga li ma la wax nii waaw moom daal gis nañ si moom loo xamante ne nii daal xam dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax lu dugg lu nekk yàlla ko si borom bi teg loxo bu baax a baax a baax te di ko xamal ni ko waaw ñun terkindaay dañu bokk foofu si moom waaw parce que dañ koy bëggee dañ koy safoo dañ koy ndamoo dañ koy tiitaroo waaw ndax lan moo tax ñu koy bëggee di ko ndamoo di ko tiitaroo am na fu mu teg suñu mbër ba pare nekk jeune boo xamante ne nii tamit xam nga jeune la boo xamante ne nii day doxal réew mi kooku noonu ñun buñ ko ndamoowul tiitaroo wuñ ko rek ñun duñu ay gor di ko xamal ne ko daal moom ñun dañoo bokk si moom jërëjëf jaajëf jërëjëf euh, Cheikh loolu lañ leen euh, loolu lañ leen indaloon fii ci jàmm gën euh, déclenché maa ngi moom am nañu am nañu sorti du yàgg dara di ngeen ko seetaan ci leeral TV leeral point net sama gars yi Baye Fall maa ngi leen di nuyu bu baax a baax gars yi Laurent borom xiin gi day daw rek moom amul arrêt waaw yow dégg naa Siteu da laa dànq ok kon les gardiens ok merci. waaw ah, kon nel di gàdd rek yaa abu saw mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm Siteu Lac de Guiers lu ci xew yëpp mbokki yi di leen leen ko wan ci leeral TV leeral point net di leen ñaanal mi suñu borom def ci jàmm ñiy wax lu ñaaw ak ñiy wax lu bon nañ ko téye kenn ku ci nekk am nga loo war wax sa kër continuer nga di ko wax sa kër nga bàyyi mbedd mi bàyyi ñi nekk ci mbedd mi liggéey yi ñu bàyyi leen bu baax a baax PDG Dame jàmm ci yow mbokk yi leen jox dij daje beneen yoon ak leeral TV leeral point net jërë ngeen jëf Cheikh Tidiane merci